kay salaamaaleykum monsieur le président maa ngi leen di nuyu di la jox sa wàccuwaay di la sargal fii nga toog tey ji nii ñi ko bëggoon dafa bari mais yow la fi yàlla teg ñi ngi lay jox sa tooguwaay di la jox respect salut waaw kay monsieur le ministre Antoine Félix Diome mi yëngal àddina maa ngi lay nuyu di nuyu sa mag yooyu nga toogal yu yaru yooyu nga xam ni saa yu ma ñëwee dama leen di xool léeg-léeg ma wax sax ruus ndax bu ma leen xoolee damay ruus tuuti rek di nuyu ñi nga àndal kilifa yii di nuyu sama mbokku député yii toog ne leen ma jàkk bu leen ma piis ma wax dëgg président Macky Sall rek ci police dafa yokk seeni soldu banque leen seen baaraam mu yokk seeni poste banque leen seen baaraam mu ñaat ci yi yokk seeni poste banque leen seen baaraam police yii Félix Antoine Diome lu ñu mën nañ leen ko jàppale parce que we have a lot of criminal we are this you guys need to be careful true I'm not saying because I want to sit down here and talking Senegalese people watching me. No, I'm saying the truth. We have uh, some criminal in Senegal. ñëpp teg seeni bët nuy yar suñuy doom ci xeex lu Sénégal musta ñun lii lañu xam sunu góor yaa ngi nii jongoma ba dee abaa ngi toog Sénégal def ba ñu baax la xam li fi am léegi am fi woon fii la ñu ci réew mi Antoine li santu mi dafa am importance li may wax lii ñuy def yëpp neex na budget yi yëpp neex na mais fii lañu saaga saagaa baaba kër si ma di ko dégg man fii lañu ñu saagaa Xaadimu Rasuul Serigne Cheikh Tidiane Sy sama jàngalekat fii lañu ko saaga ma ni mani ni Sénégal nañ leen waxante dëgg bi ñuy saaga xaadimu rasul fii la ñëpp toog di ko dégg xaras jàpp leen fii ñuy waxee nii pencu ndaw réew mi àddina di nu seetaan criminel yaa ngi fii bring the police ñi ngi fii li xew ci réew mi il faut justice do her dañ ko soxla du ñun ñii de sunu sët yi di ñëw ak sunu doom yi ci lii lañu bëgg ñuy dund di saaga réew mi nañ leen wax ci loolu loolu la justice wala lijjanti ci réew mi saaga nañu képp ku baax ci réew mi képp ku yàlla tànkal ndombo tànk makki sàll wax nañ la lu ñaaw Antoine Félix Diome yaay ma ngi toog di seetaan ak papaam ak i mbokkam ngeen koy joxoñ ñi di ko joxoñ ñi Amérique nii lañ lay def booy wax ak kilifa taxaw defal nii sa loxo respect Senegalese people ñun ñoo fi nekk nañ leen wone exemple bi doo wax ak kilifa di ko def nii ñii yàlla leen fi teg ëllëg ñun ñii ñëpp kenn ku ci ne mën nga toog fii ah daf ñu jomb daf ñu jomb xool leen li ngeen di def Macky Sall doomu jàmbur la tamit de am na ay mbokk ci réew mi de te kenn ku ci nekk ci yéen ñii kenn ku ci nekk ci yéen ñii sa doom wala sa sët ëllëg war naa mën a taxaw fii nee naa leen fii ma taxaw sama bàjjan aram jéen mës na fi taxaw te musuma xalaat sama àddina man dinaa taxaw fii moo tax may sóor njaboot gi ci ëllëg li ñuy def fii réewande la tudd kilifa yaa ngi ñuy seetaan mag ñaa ngi ñuy seetaan xale yaa ngi ñuy seetaan Macky Sall lépp ci ndoddam man Coura Macky daal warumaa dimbale sama loxo ci réew mi ma juddoo man warumaa nekk Amérique di taxawaalu di ñaan ci église yi sama mbokk chrétien yi di ma may lu ma indi ci réew mi ngeen koy teg seen bët yéen ñëpp chaque année six bu nekk ma indi conteneur catholique yee ma ko may de di jullit yi te fii laa koy indi lu tax ñun mënuñu dimbale réew mi di saaga réew mi di encourager nag opposition bi di encourager ñiy saaga te kat day wëlbatiku américains yi nee nañu was goes around comes around biram su lay jóob la ñuy saaga ba may jooy ba may jooy bañ ko defee Macky Sall dañ ko doon enjoy yi sénégalais yi mu kilbite ci sëriñ si léegi kilbite merci chers collègues la parole à Abdoulaye Diagne Fatou Gaye euh, se prépare Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, euh, soyez salués ainsi que vos principaux collaborateurs. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous félicite pour votre reconduction dans le gouvernement.